léegi nag ndaxte yéen yéen a ngi pendant que yéen a ngi wax ñi ñi nelaw rek yéen ngi jël xaalis bi di ko gis naa benn député génne di jëm hmm. justifier quoi on n'a pas dit qu'on a détourné tous les milliards parce que ce serait catastrophique mais il y bon montant boo xam ne dañ ko détourné six milliards ah mais loolu dafa ëpp pendant que nit ñu ngi doon dee ndax manque d'oxygène donc voilà c'est ça koo xam ne il a détourné euh, quelques milliards yoo xam ne ça aurait pu servir à la construction de cinq six sept hôpitaux de très nga xam nañ mm, mm, mm. servir à acheter mille ambulances yoo xam ne xëy na doon nañ ko joxee centre de santé yi gën a reculé sax ça fait suñu jigéen ñu braar yi suñu jigéen ñu jàmbaar yi ku ci xam ne dem nga ba wann lor mais nga mën a ñu mën la yóbbu nga mucc tranquillement sans nga dugg si saret boo xam ne xëy na balaa ngay gi centre bi nga nga ñàkk si sa bakkan mais génn leen donc ñi ñu di wax euh, chasse aux sorciers def fayantu bu dee la ñu wax fayantu dama koy wax encore une fois na barte tar <laughs> nañ ko def léegi léegi waaw ah, mais am na am na tam ñu soulever une euh, idée de pétition pour euh, un mandat d'arrêt contre le président Macky d'accord mais c'est que du facile bon peut-être vont le faire euh, pour la forme. bon peut-être pour la c'est pas facile parce que man Macky Sall aussi il fut président de la République. il est protégé d'une immunité présidentielle. Mm-hmm. donc topp ko yomb comme nii. Euh, mais il a fait acte yoo ne parce que mm-hmm. d'abord il s'est dédié de son serment. Mm-hmm. gannaaw il s'est dédié de son serment on le poursuivre pour d'autres raisons mais kooku yàkkamtiwuñu ko. li nga xam ne est-ce que dana yomb commissaire parce que haute trahison tamit définir ko carrément ci constitution mais c'est trahison mais c'est-à-dire que quelqu'un qui prête serment et qui se qui euh, son serment au moins ça au moins ça c'était la haute trahison. Hmm. il a trahi trahi ça veut dire quoi hein ça veut dire tout simplement ne pas respecter c'est ça la trahi mais puisque moom il occupe la plus haute fonction moo tax ñu ne haute mais on aurait pu dire il a trahi son son son son est-ce que li gënoon gaaw nekkul déjà ñu xool ci euh, sànq ñoo ngi doon wax euh, reddition des comptes bi ñu xaar ba euh, mbir moomu noonu soo soog a leer ñu situer d'abord les responsable ñi nga xamante ne tey parce que tamit comme on dit le président kenn poursuite pénale du yomb du yomb jëmee ci moom mais ñi nga xam ne tey ñoom le président joxoon yorin pour pour ñu gérer ñoom tamit ils ne sont pas passifs. non euh, ils sont passifs de de de de de est-ce que waruñu waruñu waruñu njëkkee foofu déjà. Ah, ñu situé responsable ñi nga xam ne tey dañoo jàpp ne dañoo damm. Euh, ci seeni poos loo xamante ne alalu yëpp alalu askan wi la man déjà man man man mille milliards Covid man lu tax man chaque fois su ñëwee suñu ci wax dama ciy met parce man j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Ah. ñu xa ñu xañ ma presque trois mois de salaire ba léegi man maa ngi koy jooy te am na foo xam ne waroon waroon waroon na ko. peut être peut être voilà ci ci samay ci samay besoin donc ñu def sacrifice yooyu yëpp pour le pour le bien euh, du Sénégal pour le bien de tous les Sénégalais et bien des gens mal intentionnés malhonnêtes jàpp na ñoom ñoom ñi nga xamante ne il jouit quand même euh, des avantages que euh, askan wi jox leen ñu bëgg a jël lépp li nga xamante ne askan wi ko bokk ñu bëgg ko def des choses de pàccoo. passation de marché de gré à gré fii bon duñ ci duñ ñëwaat ci ci dossier bi entièrement mais ñooñu itam baa na na na na yoon wax li war ci ñoom su nekkee ñoom ñoo def et puis. non non mais je suis entièrement d'accord cest à que le président Macky kooku moom il occupait une station faîtière boo xam ne vraiment moom la ñu war a lijjanti ay mbiram. <laughs> parce que balaa ngay lijjanti mbiram da seet ñëw ñu mu ilifoon ñëpp ñu mu jox responsabilité yëpp mm. ñu lay a jox yenn yenn information si ñooñu nga ko mën a jëlee. pour nga mën a déterminer sa responsabilité waaw sa responsabilité. Mm. moom bu ñu ko toppagum sax quoi. les gens comme ça euh, verbalement s'indigner d'accord. Mm-hmm. surtout fa bu ñu commencé dañu commencé si ñu ñu ñu naw ndawaan yi quoi bon j'ai vu qu'ils ont pris deux gars là yóbbu leen euh, mandat dépôt. Mm. mais ça c'est du menu fretin. Mm. dafa mu tur yoo xam ne ñooñu la citoyens yi bëgg moo tax le ministre de. <laughs> non mais mais mais loolu est-ce que est-ce que du mooy indi sax chasse aux bi ñuy wax. parce que au au temps de de de de de de maître aussi comme ça on parlait de Karim euh, ministre du ciel et de la terre ci tey ci gouvernement sous président euh, Macky Sall am na tur yoo xam ne son beau-frère Mansour Faye on peut le comparer euh, ministre du ciel de la terre ndax moom vraiment ba na wax lu jaar ci Sénégal ci wàllum. koppar moom laal na ci moo xam 1000 milliards Covid Covid yi laal na ci moo xam les les les yi nga xam ne signé signé nañ ko Suez ak affaire yooyu moom moom laal na ci et autre chose yoo xamante ne moo ngi fi on parle aussi de son petit frère l'affaire de Frank Timis Timis Corporation contrat contrat pétrole yi ci la bokk on même l'ancien maire euh, le maire de Pikine Abdoulaye Timbo ñu am na tamit yoo xamante ne chaque fois c'était comme si que tamit. loolu loolu loolu lay lay lay a est que c'est normal ou c'est pas normal. bon d'une part su nekkee def nañ c'est normal. mais su ah. nekkee dañu ne si ngëli. non balaa nga xam ne def nañu que doo enquête d'abord doo def mhm. mhm. tu peux pas de décréter que defuñu wala def nañu. Mhm. gannaaw dafa am jot si ñoom léegi ba bon maintenant bu ñu defee da ngeen a chasse si enquête bi permet ñu déterminer que c'est des sorciers on leur on leur inflige des les xam nga en fait chaque société c'est une expression boo xam ne mm-hmm. euh, depuis euh, église catholique bi moo ko doon moo ko doon pratiquer ah ça depuis du douzième siècle mm-hmm. au au seizième siècle c'est que comme rek jamono xam nga ñooñu toll woon nañu comme sunu yenn société yi fu ñu tolloon mais xam nga ñooñu déggatu tubaab yi ñuy wax affaire chasse aux sorcières donc c'est souvent ay jigéen la woon quoi moo tax ñuy wax aux sorcières mm-hmm. n'est-ce pas mais man salma ne me gêne pas ce ce terme là s'il s'avère que ñoom comme xam nga wax naa ko léegi. Mhm. koo xam ne dafa ŋàcc ci deretu askan bi di ko koo xam ne dafa jël ñaxu askan bi di ko say ministère mais kooku quelle est la différence à ce monsieur là ak le sorcier dis-moi quelle est la différence avec le sorcier bon maintenant s'il s'avère que c'est des sorciers on les prend. ñu traité leen comme ni ñu traité sociaux on va pas faire comme l'avait dit le député euh, APR là maanaam yeewu leen dugal leen si saako sant si géej jën yu matt lekk leen non on va on va ça dañ leen di jàpp ñu gox li nga xam ni wanu nañ ko boole ci léegi ñu yóbbu leen rëbës moo tax mu ne rëbës nañ ko nañ ko yaatal ñi fa nekk sa sàcc ndaw ndawaan yi d'abord nañ leen may grâce ñi si des xam ne mënuñu leen may ñu jël leen yóbbu leen ay Sébikotane nañuy réserver place boo xam ne ñii bu ñu leen jàppee ñu yóbbu leen paquetage yoo xam ne luy paquetage <laughs> ça c'est moi foofu rek nga leen yéene waaw foofu laa leen yéene yéene ma leen feneen quand même parce que c'est trop c'est trop nit ñi boo xalaatee la ñuy def rek parce que aussi mais bakkan doomu aadama dafa fort aller visiter la prison là nga gis ñi ñi fa nekk. mais je prends aussi un autre cas qui est là faut pas qu'on l'oublie. Bougazelli. mais en prison il y a des gosses qui sont là-bas pour un ou deux billets faux billets de dix mille francs ñu ngi fay def un an deux ans pour ñaari faux billets nga xam ne motul sax cinquante mille francs ñu ngi foofu. léegi kii nag ay millions ay millions mu ngi këram toog ci fauteuil vraiment léegi nag di xalamal euh, kii Diomaye Faye. ah bon ah oui. mooy xalam commencé na. commencé na xalam ah waaw quand même ça faut pas fermer les yeux sur ça c'est pourquoi encore une fois <laughs> au nom du peuple sénégalais j'interpelle le président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier Ousmane Sonko vraiment lii bu ñu ko jëm parce que encore li si xew mooy ñoom mais mais cas boobu est-ce que suñu xel warul mën a dal puisque c'est euh, ni ñu koy dee sax euh, sax euh, Ousmane Diagne moom mooy nekk ministre de la justice un ancien procureur quand même comme ministre de la justice il a beaucoup de yoo xamante ne moom jot naa jaar ci ay loxoom donc pour pour mbir moom laay interpellé personnellement en tant ministre am na loo xam ne ñu ngi ko koy bàkkee am na loo xam ne dañ ko naw ci moom léegi c'est l'occasion vraiment de prouver ça rapidement il y a des il y a au niveau de la justice mais li nga xam ne moo intéressé surtout Sénégalais nga xam ne vraiment ça concerne les maîtres de poursuite aussi bien à Dakar que dans toutes les régions là. na gaaw rek euh, nommer le procureur de la pour ñu tàmbali liggéey. mais mais côté boobu tamit est-ce que mooy li ma la doon wax parce que raxas faw mu faw mu faw mu set. aussi procureur bi fi nekk yow a jóg. ah mais. mais ñooñu aussi mais ñooñu isam parce que quand on quand itam. seen responsabilité lan la parce que yow mënoo fee tuumal nit de euh, terroriste nga force occulte euh, charge yooyu yëpp des procureurs toog di di di def vidéo yaa ngi ci man j'en ai une compilation parfaite ku ci nekk ak ak ak la nga wax président de la cour d'appel voilà loolu lépp moo ngi fi ñoom ñooy itam charge loolu ñuy wax xale hmm. ñu mujjee où sont les preuves sinon ñoom itam xanaa war nañu mën a situer responsabilité ñoom seen seen seen seen i wax yooyu si si raxas bi la ñuy bokk ñoom ñëpp dañ leen war a raxas bale leen. ah non am na yoo xam ne c'est c'est flagrant quoi. Hmm. Euh, non procureur ak ñenn am na ñu bëri ñoo xam ne vraiment euh, jarul ngay nekk euh, yenn enquêteurs yi wala yenn borom xam yi pour xam ne ñi tooguñu seen place quoi que ñi ils étaient là pour exécuter une commande politique. léegi ñi leen jox commande politique bi nekkatuñu fi vraiment on peut pas vraiment s'accommoder avec ces gens là quoi léegi moom laa procureur ki ministre. li ma war a def si réforme parce que am na yoo xam ne du léegi nga koy def. am na yoo xam ça va prendre le temps. mais am na yoo xam ne mun nga ko def. immédiatement waaw daar daar vraiment pour que léegi ñi ñi commencé si liggéey bi parce que dama ne reddition des comptes xëy na yaa ngi dégg ñi ñi di wax chasse aux sorcières wax naa la li ma ci xalaat. Mhm. c'est-à-dire que expression boobu ñu utiliser. Mhm. bu mu réfréner l'ardeur de ñi fi toog. parce que faut pas que ñu dégg ne waaye da ngeen def chasse aux sorcières moo tax léegi ñuy xaw a am kersa. di xaw a voilà di xaw non non. fekk nañ nit ñi ñoom ñoo ko tuddee chasse aux sorcières. Hmm. je leur dis que ils n'ont qu'à poursuivre les ces sorciers waaw bu ñu ci am benn euh, ñeewanteel ah, ah. daal non non. Hmm. mais kon loolu dina wéy ba palais de justice kon. non c'est-à-dire xam nga man dama dëgg sax ñaanu dañu waaye boo sàccee nga wax ni sàcc nga. ba la ñu balla lenn leen mu am lu ñu ci do dolli. dans ce cas là qu'on dise au commissaire maintenant et au commandant de brigade boo leen jàppatee sàcc. Hmm. ah ku sàcc fukki gi nag. boo leen ko jàppee fekk jàpp ngeen ko ak fukki nag yi la leen borom nag yi neuf yi benn bi ngeen delloo ko ngeen jox ko ko